mbokk yi ñett junniy làmp ñu bëgg buntu kër gu ci nekk borom def ci benn làmp bu timisee mu taal ko bu sëlmalee fajar fay ko def ko addee Serigne Touba ngir dëkk bi leer mbokk yi Touba ci karam faggu ay làmp yu mujj ay ay làmp LED 30 watt yoo xam ne du consommer dara ci courant ñu bëgg borom kër gu ci nekk faggu ci benn ci njëg yomb di ñaari junni képp kenn ku ci nekk bu jullee timis ba sëlmal nga taal soo sëlmalee fajar nga fay ko daf ko addi Serigne Touba ngir dëkk bi leer Touba ca kanam di woo mboolem ko yaakaar sëñ Touba te buntu kër ci Touba gi nga fàggu ci benn làmp def ko ci buntu kër suñ ko defee incha allah dëkk bi ni ko sëñ bi bëggee ci wàllu leeraange Touba ca kanam dana jëmmal loola. mbokk yi liggéey baa ngi noonu. tuubaa ca kanam di ci tàllal loxo mbooleem jullit yi. ngir ay leeral woote leen ci 78 544. 33 33 wala 76 268 28 28 ak Touba ca kanam yàlla ñu sëriñ bi boole ñu bokk ci ñu jëmale dëkk bu sell biir Touba ca kanam. wajalilaayi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri ma